mu ne yal na yàlla dooli teraanga ak jàmm nag wa ala ali ca ñooñ yonent ba wa ashaabi ak i sahabaam ñay aji dëppoo bil uhoodi ca seen kóllëre wal muta masikiina ñay aji jàpp ñaamaan maanaam ñay aji ngoy bi uhoodihi ca kóllëreem ga wal wuhoodi ak digéem ba ama baxdu ginnaaw loolu nag fa innahu xamal ne lay mbir tey mbir lama man na ba mu xeewalee allahu yàlla ala ahli kulli xarnin ci ñooñ bépp xarnu bi waliyin ci ay waliyu yasluku mu sóob leen bihim ànd ak waa xarnu ba ak ñu ànd ak ci xarnu boobee mu sóob leen tariqal huda ci yoonu njub wa yaxiduhum mu jengloo leen an subuli radda ci wotandiku wépp yoon wuy alake wépp yoonu alkande walli ye dañuy jengloo ñoñ seen ab xarnu ba ñu wattandiku yoon yuy alake wa man na yàlla moomu nag xéewal na alay naa fi nun ahla xarni nun waa xarnu bii nga xam ne moom lañuy ñuy wax xarnoob raabiha asara xarnu fukkeelu ñi ak ñeenteelu xarnu nun ñii di dund ci xarnu bi nga xam ne mooy fukkeel ak fukkeel ñeenteelu xarnu ginnaaw yonent bi ñun nag yàlla xéewal nañu bi qurati ahyunina ci loo xam ne sedd na sunub xol xuratul ay ni mooy lu sedd sab xol loo xam ne am nga ca faj aajo nun ñi dund ci xarnu bii nag muy xarnu bii di xarnub sëriñ Tuubaa nun yàlla may na nu loo xam ne sedd na sunu xol sayxinaa mooy sunu sëriñ boobu di sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa moom nag wa sayxil muslimiina mooy sëriñab bépp aji gëm kooku mooy Ahmad ibnu Muhammadin ibnu Habibillahi moom la ñuy wooye tur woowu hafisahu lahu yal na ko yàlla wattu wa hafisa lahu na ko yàlla gën a dollee wattu wa sakara sahayoo te yal na yàlla sant ay jëfam wa tawallaahu te yal na ko doole méngi ay xéewal mu ne kooku nag di sëriñ Tuba almahrufi mooy kañu miine indal haamati ca mbooloo ma bi seyxi ahmada bamba ci turu cheikh ahmad bamba noonu lañ ko daan wooyee bu jëkk bi turu xaadim rasul wi ñëwagul turu borom Tuba wi ñëwagul tur woowu lañ ko daan wooye ahmadu bamba al mbakki yi te bokk ci ko jóg mbakke kooku nag xadiimi nabiyil makiini mooy aji liggéeyal ja yonent bi nga xam ne mooy ku ku koweka daraja te dëgër daraja sallallahu alayhi wa sallama yal na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm waradiya te yal na yàlla dolli gërëm anhu jëmmam ja wa karama te yal na dolli ko teraanga ak tedd ginaaw loolu nag man Mouhamadou Lamine Diop Dagana aratu dama nam maanaam dama bëgg an ubay na ma biral maanaam ma feeñal nub ab dog min ali hayatihi ci mbiram dund Sëriñ Tuuba ay jaar-jaaram liman yaati mu ñeel ñi nga xam ni ñoo nar a dikkaat àddina boo doxoo ginnaaw Sëriñ Tuuba ñu di ko dégg te fekk ñu ko fi suñ jàngee saa téere bi dinañ xam jaar jaari sëriñ Touba moo tax may bind téere bii man Mouhamadou Lamine Diop Dagana way yuriidu te ñoo ñi nga xam ne nar nañoo ñëw nar nañoo taxawe way yuriidu te ñu bëgg ñoom ñooñee alwuquufa ñu taxawe àla say in ci as lëf min hibaatihi ci may sëriñ Touba kon ñu nar a dikk ëllëg bëgg taxawee xamle may sëriñ Tuubaa ya ñooñu lay bindel téere bii wala xat alimtu te xam naa ne maa ngi waat ci yàlla suma wallahi topp maa ngi gin ci yàlla bi ànd nii naka man Mamadou Lamine Diop Dagana la axlamu xamuma wala aati te mënuma indi minu ca sëriñ Tuubaa illa bil xulle ndareelu néew fa kayfa bil julli nan lay indi sax lépp wa kayfa bil xulli te lu néew lii ma bëgg indi sax nan laa koy mën a indee sax ndax yàlla dina ma dimbali ba ma mën koo leeral lépp